وافتقار الله أكبر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 إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فتوهوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. rahmatullah mbokk yi jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne moo nu tax a daje fii muy bis boo xam ne lépp am njàngale la sëriñ bi nag di sëriñ Abdul Fatah mii toog nekkal fi sëriñ bi ñu ngi ndokkeel bokk yépp di ñaan sunu boroom jaamu giinu jóge ak giinu nu jëm yépp yàlla na ko suñu boroom nangu di ñaan it nii ñu ko fekkee ren gannaaw bu nu ñaanee suñu borom daaw fekkee woon ko noo ngi ko ciy sant di ko ñaanaat fekkewaat ko déwén ak at yu bari yu ciy topp jàngat mu bari mi nekk ci bis bi nag la ca gën a ràññiku rek mooy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 yàlla nañu ko yàlla déggloo te bàyyil ñu fi suñuy kilifa li ko tàmbalee ci suñ Abdul Fatah bii toog yàlla na ko yàlla gën a yàggal ci suñ kanam te gën ko may fan wu gudd ko gu wér ba àggaleel ko ay yéeneen mu jàll ba ci ki nga xam ne it moo nekk ci bunt kër suñ fallu te yàlla teg ko fi te wàllu suñ fallu gépp nangu ko muy suñ abu baraka moom it yàlla na ko yàlla àggale ay yéeneen ci naari suñu fallu yi waaye noonu lañ ko jàllee it ba ci ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne ku ko tudd ñaara da nga tudd ñaanal ko mu yàgg fa te wér làmmiñ yooyu yëpp yàlla dégg na ko yàlla ko yàlla nangu te li ko fi mel na mbokk waxoon rek ne ko duma la wax ni la saa boo geesoo gis nu ndax day mel ne kon dañoo dox doxinu yaafuus waaye nañuy def nañ ñaan yàlla foo xool rek gis seen ñu ci sa fekk Eh, yàlla nay def bu xoolee rek seen ca peggam suñ kilifa yi ñoom itam fu ñu xool seen ñu sëñ baa ngi nuyu bokk yépp di sant mbooleem ñi nga xam ne jóge nañ fu nekk te bis bi tax leen a jóg yàlla na yàlla defal seen tànk ñëw ak seen tànki dellu yépp tuyaaba te def ci réew mi jàmm te wàcce fi ndoxam jàmm li eh, ñu tàmbali yépp àgg te ñu muurloo ko te def jàmm ci fépp fu ab jullit nekk eh, yàlla nañu ko fekkee déwén asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li wax lépp sama sama doomu sëriñ sama rakk sama xarit waxoon na ko ba noppi. Amadou Rafaay xanaa di ko ñaanal mu yàgg ci loolu rek ba yàlla yàgg yàgg topp ndigal waajuram ma sëriñam ba ci fan yi weesu rek ndax maa woo ci àndaka wax ma ni ma kat. dafa am euh, ñoo xam ne dañoo bëggoon mu dem euh, dem aji baytul haram mm-hmm. ba ma ko waxee xaw naa si man lool ndax booba daal seet naa seet bu demee kan mooy war jiite bi daal jaaxal na ma lool waaye mu daal di waxaat rek ci saasa rek mutul ñaari fa ne ma ne ma lañ ma yónni woon delloo naa leen ko mu réy fi man lool kon maa ngi sant maa ngi ko sant baax di gërëm ñëpp yu nuyu ñëpp tay tàmbali nuyoo bi ci mbokk julli fi daje yëpp jiital ci nuyoo ba nag Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul di ko ñaan mu yàgg fi di wér lool ak njabootu Cheikh Ahmadou Khadim yëpp ak ñun taalibe yëpp di nuyu eh, sunu kilifa sunu wasila Serigne Ebo Mbacké moom Cheikh Modou Fadal di ko ñaan mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikh Modou Fadal ak ñun taalibe yëpp di nuyu sama bokk yi fi daje yëpp nag tàmbale ko ci ama Ahmadou Rafaayou ak sama doom yi bopp yii yëpp maa ngi leen nuyu eh, bu ma limee damay juum waaye ñëpp sama njaboot ñu ñu topp euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di ñaan nag ci sa turu sëñ Amadou Rafaay mi fi nekk nga xam ne moom moo fi moo lañ fi xoole sëñ bi mu wax ci nawet bii ndox mi ñëw ndax kat fii ci Ndindi Cheikh Modou Faara toogoon na fi ba yàlla dogal euh, nawet bi doy waar lool ba ba euh, lu ci bari di dee ci ci ci ñax meeg gerte gi ak dugub ji mu yónni ma Mandiaye bi ci ci ku baax ci njaareem ba mu demee wax ko sëriñ bi sëñ bi ne ko doom wool ma ko moom mu dikkee mu ne ko loola na ma amee te ngay nekk fa mu ne ko maa ngi fa waaye mënuma ci dara mu ko nu ngeen di génne asaka mu ne ko bu buñ buñ bayee buñ bayee dugub ji ba koy natt fee eh, génne asaka ji def ko jàgg bu ndaw bu dee bu bu dee bu dee gerte gi nag buñ buñ ko buñ ko génne ba noppi dañ koy xayma ñu war naa ma tool nangam eh, ko defee ñu génn ko cib xaalis delloo loola ci gerte ci ga sëñ bi ne ko loolaa maa ngi ñëw bi mu ne maa ngi ñëw rek bi bi ne maa ngi ñëw ma matul matul juróom miir ndox mu sotti ko kon nag